Un pur mensonge monté par Farba Les chaises de l'Assemblée nationale ne permettent pas à une personne de s'affaler comme elle s'est affalée. Cette un mensonge du bout, de bout en bout. Et lorsque vous aurez en possession le PV mensonger et manipulateur qui a été écrit par le président de l'Assemblée, vous comprendrez aujourd'hui que ça ne pouvait déboucher que sur ça. Le groupe va se réunir dès ce soir et nous prenons acte. Je sors d'une réunion le a été la motion de censure que le groupe Yewwi Askan Wi a déposée hier. Le Premier ministre représentera devant l'Assemblée jeudi à partir de 10 heures. À partir de jeudi, nous déparons aussi nos positions et nos stratégies pour faire face à ce qui est une, euh, une forfaiture. Les avocats l'ont dit, aujourd'hui, c'est des députés qui bénéficient d'une immunité parlementaire. les députés en session qui se battent dans l'hémicycle n'ont pas à aller au pouvoir judiciaire. Si deux garçons s'étaient bagarrés, qu'est-ce que ça aurait donné Rien du tout. Parce qu'on nous dit que c'est une femme. Aujourd'hui, nous irons jusqu'au bout pour prouver que cette histoire est un mensonge, que même nous doutons même de la grossesse d'Aminia et Nibi. Mais comme ce pouvoir-là est habitué des faits, ils nous auront en face parce que nous ne mais nous nous bagarrerons à l'Assemblée nous nous bagarrerons à l'Assemblée nous sommes nous sommes 83 députés de l'opposition nous irons au bout de notre logique déjà à partir de jeudi je pense que publiquement, vous saurez maintenant pourquoi, qu'à chaque fois qu'on vote, des gens ont euh, le, le, parti au pouvoir à 86, 87 voix. Je pense que c'est une position de principe et nous ne doutons, doutons, pas que ce sera un sujet sur lequel on se pourra se baser pour fédérer l'ensemble des voix de l'opposition et faire face à, à ce pouvoir. waaw dañ fi ñëwoon jàppale sunu ñaari collègues yi waaye li fi xew ñu li fi xew bettu bettuñu ndax euh, xamoon nañ li ñu doon liggéey yëpp ci lii la ñu bëgg a agsi mooy ni ñu fexe ba faagaagal suñu collège yooyu pour ñu bañ dakkal ñu dakkal seen mandat député te ñu nag duñ ko nangu ndax histoire bi wax nañ dara du ci dëgg xëm beeg xëmu ami njaay beeg yëpp ay dóorloo ñoo xam ne Farba moo ko monté foofu ndax chaise assemblée yi ngi toog ñun mënoo fa daanu te xool leen image yi xanaa yow sax sa mbokk bu daanoo di nga jug sa xool ki la la jot Ami Ndiaye daanu na Farba Ngom mu ngi toog naan woo leen gars yi lépp ay diil la ay dóor la te nguur gi loolu la ñu tàmmal waaye bi paana du yomb parce ko nangu incha allah ñun déposé nañ motion de censure fa laa jóge nii te premier ministre dafay dellusiwaat assemblée jeudi bu jógee foofu aussi daañu ko neexee bi parce que lii ko nangu incha a laajte levée immunité tey au moins am nañ garantie yu mat assemblée que au moins am nañ quatre vingt voix quatre de l' te gëm nañ ni que bu mel nii mën na mën na fédérer opposition bi yëpp bu ko fédéré aussi opinion daañu xam ñan ñooy voté pour ak ñan ñooy voté contre mais lépp lu ñuy yoon may rek ak taxawaay may incha allah dañ ko mate parce que lii duñ ko nangu. ñun moom ñu ko dëggal dafa mel ni grossesse su aji Sarr bi rek ba léegi wasinagul te man jàpp naa ni Amy Ndiaye mi du du wasin tey du wasin suba du wasin gannaaw ëllëg en tout cas ñun ci taxawaayam ci commission yi ndax xeex na fi bi du benn yoon du ñaari yoon Amy Ndiaye song na fi baara dolli saaga ko ñu koy téye mu gën day xeex moom xanaa boobu ëmbul woon léegi la ëmb waaw léegi nag parité bi ñëw ne góor amatul jigéen amatul ñun ñëpp a yem ay parlementaire bu ñaari góor xeexoon lu muy joxe lu muy joxe dama ne ah dëkk bi nañuy àtte dëgg te bàyyi bàyyi parparloo bi ak bàyyi naafeex bi dañu ma baal ci wax ji mais lii bu doon ñaari góor du egg fenn ñaari parlementaire ñoo xeex te du guleen bu am assemblée bi règlement intérieur am na lu mu prévoir waaye président bi bind benn PV à charge ne Massata dafa ñëw rek xëy dóor ko dafa ne nit ku nekk fi Sénégal la ku nekk sa pas-pas sa gëm-gëm boo respecté nit ñu respecté la Amine Ndiaye mosul respecté kenn booy wut ku xamadi ak ku wayadi ba daj ci Amine Ndiaye dañ nga ku wayadi ñun ñoo ko dund ñoo ko fekkee lan moo tax ñu am problème ak Amine Ndiaye amuñu keneen keneen et je pense que même waa groupe Benno dañuy ñëw di la wax ne kii elle est incontrôlable elle est ingérable je pense que lii injustice la te duñ ko nangu merci